tuddee ci turam ak santam parce que lii wane na ni ku bëgg fu fanaan la ku bëgg ko wetti tëjal buntu waru leen boole lii muy jëf ju ndax dan ni ku tabax sax lu tol ni tàggum picc ci juma yomal xiyaam sunu borom àjjana lay fayee ba tax na Ousmane ki bëgg kebe meeram ak yéeneem ak xolam indi ci juma ji ñaar fukki tonni sima nee na bu yàgg la waroon na ñëw waaye jaam ak pexem yàlla ak mooy dogal tey ji ko yàlla dogal te tax tey jii tax sa waa baax bi mu jotee loo gis bu jotee rek lay am mu yebal mouvance présidentielle bi délégation bu mag ñu ràññi njaga njaga jaw le premier adjoint au maire Binta Kébé Seye la deuxième adjointe au maire le doyen Papa Sidi Diop le doyen Salim si monsieur Ndoye Babacar mbay Amadou Ka Ibrahima Sy Ibrahima Sy Cissé Kébé Ibrahima Diallo Ibrahima Camara Toubarkalla ak Aliou Sylla Mbaye jàppale leen ma ak Ibrahima Sy Ibrahima Sy Toubarkalla ñii ñoo ñëw tey ak El Hadj Mamadou Mbengue ak Babacar mbay ak Assane Niang fekk si tey El Hadj Ndiène la délégué de quartier ak Amadou Ka waaw Ousmane toll noonu ku lim da ngay juum délégation bu ku ne sa yéene nga ñëwee président Mamadou Mbengue ñu lay nuyu. aji ngeen nu ngi lay nuyu yéen ñëpp ñu ngi nuyu teraanga ji daal tubaar kàll Ousmane Cissé le directeur le docteur bëgg lool Kébémer lépp lu baax ci Kébémer loxo ma nga ca barki démb la yëkkati moket yu bëri yóbbu ca kër Serigne Touba tey mu fab ñaar fukki tonnes ciment ñaar fukki tonnes ciment duy caaxaan jàkka joo def tubaar kàlla daanaka yegg na loolu nag mu ànd ak yéeneem ak asaka yéeneem ak délégation bu mag bi mu àndal ñëw indi teraanga ji léegi nag comme bala ñoo nag. dañuy bàyyi tuuti orateur rek ñu sànni ci kàddu Ousmane dégg loolu xam ne li mu def ci Kébémer rëy na waa Gala kontaan nañu ñaar fukki tonnes ciment ci jàkka ju mel nii ko fendi daanaka yegg na ku ñuy jox kàddu gi léegi ñu jox kàddu gi doyen Sidi Diop ñu jox sa xarit def sa doom def noo ko gisee xam naa ni kontaan ga ci lool. allahuma salli ala sayyidina muhammad bokki Gala ñoo ngi leen di nuyu. jël nuyoo bi teg ko ci loxo délégué de quartier ak mhm. Mamadou Mbeng mhm. ñu àggale ko fa mar a àgg njenne alaaj njenne mhm. xam naa nijaay ndey kebe ma ca sama wet Ousmane ci boppam moo waroon a ñëw waaye nag jàpp na ne que am na ñoo xam ne buñ teewee rek teewal nañ ko muy délégation bi nga tudd alaaji jaaja mbay mi ngi leen di jéggulu woo naa ci suba dafa nek ndànd ci ab dëj waye fi. a ngi fi li nga wax ci ciment bi ci Ousmane digga won ko digga bor la te yene yéene doon ko waxe ci suba sa mu ñew waye liggeyam ak tank tank jamono taxna mu xawam tardama waye li nga wax deug la lu jot yomb di ñaan yalla liggey bi ngeen naal ca yalla rek tax yalla gis na ku ci nekk liñ ci jëf jarul di siiwal jarul di kii ndax borom bi nga xam ne bi moo tax moom moom néeg bi dara ump ko mm-hmm. nañ ko teg foofu rek buñ ko tegee foofu di dal yomb di ñaan yàlla yéen ñi nga xam ne yéen ngànk liggéey bi yàlla na ngeen toog ba émi seeni sëti sëtaat aw leen ci liggéey bi lépp barkeel wax ji du sori dañuy jàpp rek nag dañ fay ñëw bokk ci quartier bi bokk ci dëkk bi eh bien suñu jarbaat Ousmane Cissé am yéene mm-hmm. yéeneem jooje yàlla na ko yàlla àggali ku ci nekk ci délégation bi boo sañoon eh bien lii Ousmane def nga def ko mm. waaye na bu Ousmane defee defale na ñëpp bu Binta defee defal na ñëpp Njaga Jóob defee defal na ñëpp jàmm xéewal jàmm ak xéewal jërëjëf Papa Sidi wax ji rafet na tubaarkàlla li nga wax rek mooy dëgg bu Ousmane defee defal na mouvance présidentielle bépp kon bala ñoo sori ñu jox sunu xarit le premier adjoint au maire di nit ku baax waaw tere bien nee na ndeysaan moom comme d'habitude Binta Kebe mooy rakkam mooy jigéenam ñoo bokk lépp tubaarkàlla waaye moom fu Binta teewee rek day fab lépp teg ci loxoom madame la mairesse yóbbaale ko bis bu mag bi nga xam ne sa càmmiñ def na ko te bu ko defee defal na ko Kébémer gépp ndax lii xol bu ne kontaan na ci ñaar fukki toni ñaar fukki toni ciment nga indi ko ci jàkka ji tubaarkàlla Kébémer gépp la waroon kon bu ko docteur Ousmane Cissé defee Kébémer kontaan na ci madame le maire ñu jox la kàddu gi nga sànni ci jëf jure ji sa càmmiñ def. auzu billaahi mina sheytaani mbokki gàlla ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di euh, kontaan ci ñëw tey fii ci gàlla ànd ak toute la mouvance présidentielle maar lim na délégation bi ñu àndal ñëw pour andi teraanga directeur de la SOMISEN. docteur Ousmane Cissé muy lu mu fi diggee woon fii ci néegu yàlla bii nga xamante ni si euh, population Kébémer gi yëpp bëgg nañu am schéma bu mel nii rawatina ba mu nag nekkee gala du suñu dëkku maam ndax ku ne xam na ni euh, dañ naan Kébémer mbeng ak mbaay euh, ñu bokk gala kon bu fi Ousmane wàccee teraanga gi ñun la ko wàcceel ñuy sant délé bi nga xamante ni si moo ñu accueillir muy Baye Ndiéné di sant délégation bi yëpp waaye rawatina Mamadou Mbengue kooku dañoo bokk Lat Fall Lat Fall ak Modou Khourék ma baaboo bokk ndey ak baay kooku loolu laa bokk moom du Mbengue kon bu nu ñëwee fii tey indi lu toll ni vingt tonnes ciment Ousmane defal ko waa Gala ñun ñëpp dañ ciy kontaan dañ ciy fier moom nag mu matale lool nii defal naa ko mu mouvance présidentielle bi yëpp waaye ñun incha allah ñun ñëpp sunu loxo dina ci dem ndax néegu yàlla képp ku ci def rek sa bopp nga defal. kon dañuy ñaan yàlla nañu dund bay inauguré yàlla nañu dund bay inauguré ca lépp lu fi waay jaamu yàlla yàlla nangul na ko ci barke Seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lii daal kontaan nañ ci mouvance présidentielle yépp kontaan nañ ci te tamit incha allah rabbi dinañ fi ñëwaat yeneen i yoon ne nee leen bu dee ventilateur kenn du ko xeeb bu dee basanga kenn du ko xeeb bu dee makkata kenn du ko xeeb lépp lu ñu am rek incha allah dinañ rabbi dinañ ko indiwaat ngeen xam ne sunu yëf la ñun ñëpp dañ ci def suñu loxo ni ko Ousmane defee ñi ngi santaat ñëpp di gërëmaan ñëpp. jërëjëf madame l'adjointe au maire def nga lan la doon def nga lan la doon xaare def nga lan doon déglu ci yow yow dafay boo teewee njaga dafay fab kàddu gi jox la waaye madame la maire njaga madame la maire nee na nga sànni ci ay kàddu mënta ñàkk ana njaga nga sànni ci kàddu jaw waaw waaw dëgg la jaw dëgg la jaw sax waaw dëgg la jaw euh, mbooloo mi dañ leen di jëkk a jégalu bu baax di leen masawu ci coono bi di sant yàlla bu baax ba ñu teewee ci lu mel nii ci wax dëgg yàlla lu mel nii bu la ci jullit wooye mooy sa mbokk mooy sa lépp loolu nag la Ousmane xam ba dugal ci loxoom ñu ñu ci ànd ak moom moom tam ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ba ñu yàlla boole ci délégation bi te dañuy wax ni gala moom euh, loo ko loo ko loo ko defee rek mu jëm ci lu yoonu yàlla rek. defal ngeen li ñoo bëgg kon dañuy sant yàlla ñu ngi commencé ko ci délégué ak Mor beeg ak ñi fi teew ñëpp yàlla guddal fan yi wéral wéral cër yi naal bi ngeen naal pour jullit yi ne ci koñ bi wala ci Kébémer yëpp sax sumb bi àgg ba ngeen sumb yeneen i sumb yoo xam ni ci diine la jëm ñu ngi leen sant di leen gërëm ci lii nag boo gisee ñu def ko mooy dëkk bi moom euh, ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. Kébémer benn bopp la moo tax lii ñu ñëw euh, sol suñu daal ñëw fii. Mhm. pour mën a bokk ak liggéey bi barkeelu ci ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp métti. jërëjëf Ndiaga wax bi rafet na tubaarkàlla Kébémer gépp la ko Ousmane se defal directeur de des mines et de la SOMISEP SA di nit ku baax tubaar tubaarkàlla wax naa leen ko lépp loo xam ne teranga la bu jëm ci Kébémer lu mu ci man dina ko ci def toogul benn yoon mu ngi ci ordinateur yi mu ngi ci moquette jàkka yi mu ngi ci ciment bi mu ngi ci dimbal mi mi ngi ci lépp Ousmane daal doomu Kébémer boobu daal li muy ut ci Kébémer na ko yàlla may. léegi ñu jox kàddu gi nag le coordinateur euh, astafurlah le communicateur di nit ku baax tubaarkàlla Ibrahima Diallo le pionnier de l'APR le pionnier du mouvement présidentiel mu sànni ci kàddu Ibrahima vous avez la parole. salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo yéen ñëpp ci kenn ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu aussi délégation bi ñu àndal. di am mbégte bu yaatu vraiment ànd ak délégation bi teeweewaat fii tey ndax dañuy def euh, programme bi bi ngeen def pose yàlla dafa defoon ñu defoon délégation àndoon ak Ousmane ñëwoon fii Ousmane am engagement ba mu jël yàlla dimbali ko ba mu matal ko tey kon dañ naan alhamdulilahi rabbil alamin ndax nit am na yéene bëgg ko def sax mu am gàllankoor ci diggante bi mais tey Ousmane lii mu def te yàgg koo def ci quartier yu ne yàgg ko def aussi ci ci ci ci lépp loo xamante woote nañ ko ci lu jëm ci diine wax dëgg yàlla ci commune Kayemé dañuy gis ci dugal loxam yàlla def nag mu mu tombé aussi ci jamono joo xamante ni jamono xëccoo la ñu toll ci mer ñëpp ku ci ne di tàllal loxam di soxla dinañuy delluwaat rek di leen jébbalaat suñuy loxo di leen wax ni ngeen jàppale ndax itam nit. bu defee mbir te yàlla tax yàlla moo ko ciy fay ndax lii Ousmane def yàlla moo tax mu def ko defu ko pour politique defu ko pour ngistal mais dafa fekk ni jamono yi ñu toll fépp fu ñu dem rek même bu fekkoon dañ fay dem waxtaani joxewuñ fa dara danañ tàllalaat suñuy loxo ne ñañ fa fekk na ngeen ñu jàppale ndax ñun dañoo bëgg Kébémer am changement te loolu lii firndeel rool rek mooy ko mbooloo bi ñu àndal tey ndax ñii ñu àndal tey ku leen xool xam ne Kébémer moo leen tax a jóg di dolluwaat rek di waxaat di santaat responsable yi ñu fekk fii nga xam ñoom ñoo ñu toogal fii mënumaa lim mais gis naa ci Aliou Sylla Mbaye ak tonton Mamadou Mbeng ak Cheikhou Mbaye ñi nga xam ñu ngi ci liste bi yëpp di dellu Cheikhou Bey di leen sant yéen ñëpp di wax ni le responsable bi fi nekk muy Mbayka Aruna dafa am gàllankoor am fu mu dem dakaar moo tax mënul teewee lii tey mais bokkoon na ci ñi nga xam bo ba tay ñu ko and ak responsable fi nekk di dox pour que li sotti kon nak dañ nan alhamdullilah rabbil alamin di wat rek di ñaan yalla comme niko madame le maire waxe yalla nañ yalla may ñu fekke mhm. ba jullu ci inauguration di loxu wa kebe maire yëpp rek di wax ni ñun maire mo ñu ñor te yeen ci dekk bi ngeen dekk surtout li nga xamanteni mom moy ci xolu maire kon ñu ngi delu di len santaat di len gërëm wasalaam jërëjëf Ibrahima Diallo le, le communicateur di nit ku baax tubaarkàlla léegi nag damay jox kàddu gi doomu gala di seex waaw ma jox délégué de quartier léegi nag ñuy jox délégué de quartier bi ki nga xam ne tey booy dugg ci kër gi ci moom ngay jaar muy alaaji njenne ji njenne jëf ju mag ji Ousmane Cissé def ci sa quartier bii tubaarkàlla taaral sa quartier bi fab jàkk jumaa ju toll nii ngeen def ko ci quartier mu participé ci vingt tonnes de ciment alaaji njenne kooku am na loo ci war a sànni. mbokk yi. maa ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant te di leen jéggalu ci jóge gi ngeen jóge seen kër ba ñëw fii teraanga ji ngeen fi indi gis nañu ko yitteel nañu it ñu ngi leen ci sant it yal na leen ci yàlla fay li tax ngeen def ko it lépp luñ ci man daanu ko def daanu ci jàpp bu baax xam nañu it li tax ngeen def ko kon yàlla mi nga xam ne moonu bokk yilif nun ñëpp moom it xam na li ci war dana ko def benn li ko ni ko ni ko sama jigéen sama jarwaat bi Binta waxee léegi noonu la benn fepp suuf ku ko ci def wala benn fepp ciment ku ko ci def da ko fekk ci àllaaxira kon loolu loo am solo la ni ngeen ñu santal mm, Ousmane Cissé santal nu yéen ñu fi ne yëpp ñu sant nañ leen gërëm nañ leen li ngeen bëgg yàlla na leen ko yàlla defal te muy seen njiglaay di njiglaay yi dëkk Kébémer gépp njiglaayu Kébémer gep ndax Kébémer bu jage ñepp la jagal bu jage de yit ñepp la jagatil kon ñu ngi leen ci sante bu baax sante nañu baax ndax teranga ku la ko defal mënatoo ko fay lepp li ngeen bëgg lu ci mën daanañ ci japp japp gi it leewun leen suñu bop lañu jàppale suñu bop lañu jàppale ndax bu kebe baaxee ñepp la baaxal té noo ngi ci biir kebe am fi ay cër kon xam nga war ngeen xamni duñu yaq lu koy defar rek leen bëgg ku mën a defar rek ñëwal defar man noonu laa ko gisee te noonu la ñu ngi leen di sant di leen gërëm yal na ngeen ko gën a man fépp fu ngeen demit yal na fa yiw yàlla jub wasalaam jërëjëf Mbaye li la dal rek président Mamadou léegi ñu jox Cheikhou mu sànni ñaari baat ndax yow nga clôturé Cheikhou jumaa jàkk ju mag ji tubaarkàlla ñu def ci seen gox ci sa deret ci sa digg mbokk Ousmane Cissé def ko nan nga jàngate mbir mi auzu billahi samil alim min asheytan rajim la hawla wala quwata illa billahi aliyul azim asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu bokki jullit yi fi teew yëpp ñoo ngi sant yàlla di julli sangub sangay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen nuyu te di leen siyaara di leen jox seen wàccuwaay nuyoo bi nag ñoo ngi ciy jiital kilifa yi ngeen àndal yëpp ñëw fekk si ñu ànd ak délégué de quartier ak imam kon ñoo ngi leen di nuyu ci turu magi dëkk bi yëpp di leen gërëm ci turu magi dëkk bi yëpp góor jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci initiative bi nga xam si moom la Ousmane Cissé def ndax keroog ba ñu ootee war a teg première pièce euh, di jumaa ji jumaay gala def fi ñëw mu yëgal ko mu ñëw ànd ak délégation ñëw wax fi ay kàddu yu rafet ni allah dana ci def yéeneem lépp lu mu ci man dana ko def joxe fi ñaar fukki ton ak ciment ñaar fukki ton ciment mu joxe woon ko fi ni dana ko fi indi alhamdulillah rabbil alamin indi na ko tey kon mi ngi ni ñu jàkkaarloo ak moom gis nañ ko ñun ñëpp ñoo ngi sant yàlla nag di julli ci sangub muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax wa anal masajid lillahi fala tadawma ma ahad fi neegu la kon néegu bu yàlla lu ci waay def sa bopp nga defal man amila saaleen fa li nafsihi Ousmane li mu ci def boppam rek la ko def fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin saran yara kon Ousmane lii mu def fekk na nag lii ban ko bëggee yàgg na waaye nag dafa am partenaire yoo xam si suñuy mbokk di suñuy kilifa di sunu lépp ñoom ñoo def lii ñoom ñoo ni incha allah fas nañu yéene jumaay gala daañ ko taxawee daañ ko def laa ñu ci kenn dërëm daañ def lépp waaye nag lu mel nii boo ko dee defit jullit yàlla yi nekk fi ah kenn ku ci nekk bëgg cee sànni saw ñaq sa tiyaaba kon léegi ñun ñoo ngi xaar ñëpp waaye nag liñ ci war a def lépp macha allah Pape Yoro ak ay mbokkam ñi nga xam si ñooñu ko fi defal li ci war a def lépp def nañ ko waaye nag lu baax boo ko dee def kenn ku ci def am yéene pour barkeelu ci lu tol ni néegub yàlla boo koy def ab julit yàlla dikk ne da ciy def participation kon kooku ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaan lu man ren yàlla na man déwén lu ko ëpp gërëm nañ ko sant nañ ko sant mbooloo mi muy àndal yëpp waaye liñ ci war a def lépp it macha allah ñi ngi koy defal def nañ ko kon nag lépp lu ci waaye def sant nañ la lépp lu ci waaye def gis nañ ko gërëm nañ la sant nañ la ñoo ngi leen di gërëm di leen sant di leen balu àq ci wax ji bala ma gudd ci wax ji di leen xamal ne daal waa yëpp kontaan nañu ndax danaa def def loolu yàlla la ak xolam ba nga xam si yàlla may na ko xolub def ndax am na ñoo xam si dañooñu am te duñ ko def kon nag yàlla dogal na moom am na mën na def na ko kon gërëm nañ ko sant nañ ko waaye li ci war a def lépp daal ñi nga xam si ñooñu ko fi defal commencé ko def nañ lépp kon nag Ousmane sant nañ ko gërëm nag délégation bi yéen ñi àndal yëpp ci turu dëkk bi yëpp kon gërëm nañ leen sant nañ leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Cheikhou wax ji rafet na tege na ci yoon tege na ci temps. waaye président léegi Ali Sile Mbaye daf ma woon ni ma balaa président wax ñu jox ko mu wax seen kilifa tëj léegi jox Aliou le grand responsable du quartier bi. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla na ko yàgg teewee ci barke yonent bi di nuyu Ndiaga Diaw.

ak ñeen daan and ñoom asan ñaan nañ loolu daanan and muy gis ñu ni dem leen jàkkatel bu ko kenn yëg lu fa manqué ngeen dikk bind ko wax ma def ko te bu ko kenn yëg Ousmane lii donc ko ñor Ousmane ci kii bi ci koor gi dem nañu këram mu woote fa jël daayira juróom-ñett fukki daara ak lu topp kenn ku nekk mu jox la ceeb ak dinaa si laaje xam lu mu leen wax tey politique taxu jóg yàlla tax ma koy def li ñuy def ni yalla rek tax mu def ko Ousmane yalla nako yalla sam te yàggal ko suñu kanam ma ngi koy ñaanal lool bu baaxa baax Pa Modou yow amuñu sa fay ndax sa taxawaay koñ bi rafet na trop te yow amu fen sens interdit macha allah man sa kii la may bis bu ne may wo di nemi ko foo ma gis yaa may wër di and ak man pour ñu liggéey pour ñu waxtaan pour ñu sotante xalaat kon manglay ngi lay sant di la ñaan di la gërëm alaykum wa ma ngi jërëjëf wax na yar ca gi na président Mamadou ñu jox la cadeau gi nga sanni ci cadeau jere jërëjëf Mar euh mbokk yi ma ngi leen nuyu ñepp ñëpp seen tur ak seen sante nuyu ci tour maamu jakk bi di Ibrahima Diagne dafa génn dafa nekkul motax teewu fi waye melni ni mi ngi fi ndax buñ fi nekké melni na mu ngi fi di nuyu aussi tour délégué yenn mbaay mi nga xam moon wax léegi leen nu nuyu ci turu quartier bi yëpp leen wax ni wax dëgg yàlla kontaan nañu di jégalu nag aussi si wax dëgg yàlla condition yi nga xam sax moom lañ leen recevoir parce que sincèrement da nga ñu bett ndax bi ma euh, ndooy wooyee Assane ñaa woo ne ma da ngeen ñëw ah dama jàppoon rek xëy na ay délégation restreinte la waaye bu ñu xamoon nii ngeen di toll. kon wax dëgg yàlla dana demee neneen tax yéen tey dañ leen waral war a dalal tapis rouge wax dëgg yàlla mérité ngeen ko kon ñoo ngi leen sant yéen ñëpp euh, di doore nag nuyoo bi ci turu vraiment doyen Sidi Diop mi nga xam si moom itam duñu dellu di ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam ndax moo sama mag la woon Baara Mbeng ak mag yi dëkk yu yëpp ba léegi moom tam wax dëgg yàlla li waroon ci lu rafet lepp mi koy def ci dëkk bi kon nag doyen Sidi ñoo ngi lay gërëm di sant di la ñaan yàlla na yàlla wéral cër yi guddal fan barkeel njaboot gi ah wax ji nag moom duma ci sori ndax pratiquement li ci waroon am wax lu ci bari wax nañ ko ndax kenn bi nga xam si ñi ngi def pose première pierre bi te Elage Hadj Mayoro Sall di di doomu Seigne Abbas Sall bu Louga ñëw fi xool juma ji nii kat bëgg naa leen di jàppale ba ndax fi jàkkale woon mu ni dañoo bëgg ñu def ko juma ah quartier bi wax dëgg yàlla ñëpp kontaan ci lool ni ko lool de bu mën nekk alhamdulilahi rabbil alamin mu def ay investigation ñëw ni mën naa nekk li ko lépp mu def ko ba keroo ñuy def pose première pierre bi bi ñu def pose première pierre aussi wax dëgg yàlla Ousmane Sidi envoyé une forte délégation booba yéen ñii doyen Sidi yéen ñëpp yéen a ci woon te bi ngeen ñëwee aussi bi El Hadj Mor Sall waxee conditions yi xam si moom lañu financé jumaa ji just la directeur Ousmane Cissé agsi daal ni kat may tamit il faut muy jóo ci sama loxo ndax lu baax moom surtout mbirum euh, juma fu ma ko fekk rek lu ma ci war danaa ko def daan daan leen jox vingt tonnes de ciment bi ko waxee ci saasa nag sax am na xayma ñoo tax ñu doon duute ndax ñu ah vingt tonnes bari na waaye nag yàlla baax na ba tey jii vingt yi ñëw kon ngeen waxal ni directeur Ousmane Cissé. waa Gala day gis nañu li mu def waa Gala kontaan nañ ci te ñu koy ñaanal yàlla ah di leen ñaanal yàlla yéen tam ngeen ñëw a ah, lépp loo xam si jaamoon nañ ko ci jumaa ji mu nekk yiw yàlla nañ ko bokk yàlla nañ ko bokk yàlla nañ ko bokk en tout vraiment kontaan nañu dégg nañu nag li ngeen wax loolu tam incha allah ah dañ ci ba xel ndax dañ ni kat kuy def ay ku am soxla. nga fekk si ko ci ah yaakaar naa ni fekkente ni yow tam koo moom am na soxla a ah, loo ci mën da nga ci def kon nag dégg nañ li ngeen wax te incha allah ah lu ci mën tam danañu ko ci def en tout ñu daal kontaan nañu sant nañu lii daal moom a ah, buñ ko bàyyi parce que nag madame le maire wax na ko léegi liggéeyu jumaa moom du jeex lu nekk lay laaj kon boo liggéey itam lépp lu ci waaye mën a def loo ci defa tam sa bopp nga ko defal ndax mbirum yàlla rek nga nga koy def kon vraiment ñoo ngi leen di gërëm ñoo sant sant nag aussi xale yi waxtu ko wax nañ ko léegi ndax fii biñ ko dooree ba léegi boo gisee mu agsi ci niveau bi ñu bari bu ñëwee dañuy jaaxle sax dañ ne kañ lañ ko def première pierre bu mu agsi fii ndax ñu ko gëm keroog El Hadj Pape Mayor Sall bi mu ñëwee visité jumaa ji dañuy wax dëgg yàlla moom bett na liggéey bi fi mu toll ndax gis nañu maçon yi jàmbaar lañu xale yi xam ne itam ñoo nekk ci koñ bi ñoom ñëpp ñu ngi fi du ma lim parce que boo limee juum waaye ñoom ñëpp kenn ku nekk gis ngeen fees fii la ñuy yendu même xale yu ndaw sax fii la ñuy añee jàpp ci liggéey ñu ñoom tam ñëf ko seen biir kon nag ah yéen a jiñ ci am yàlla ko yàlla àggal te bis bu ñu ko sottee itam yàlla nañ ko fekk ñun ñëpp te lépp lu ñu fi jaam tam yàlla nekk eh, xéewal te bu baawan ci Sénégal baawan ci àdduna bi yëpp maa ngi leen gërëm di leen sant wasalaam. dafa am lu wolof Njaay wax. wolof njaay dani ku la may bët nga xool fa ko neex loolu mooy wax dégg nga Alaaji Njëlle nee na ku lay may bët nga xool fa ko neex léegi nag ñu def ñaan loolu daal mooy teraanga ji nga xam ni Ousmane Cissé directeur de la SOMISEMSA andi na ko ci ay mbokkam andi na ko ci gàllam mooy vingt tonnes ciment léegi nag ñu def ñaan Capte Vision ñu ngi leen di gërëm di leen sant sama doom sama frère kii ñoo bokk benn ndey gis nañ liggéey bi sell na jëla jërëjëf Dieng Diossi merci